Mhm. ñoom aussi ñu ngi lay fay donc Aïssatou mhm. fi ñu koy dooree moo di sorti député Yewwi Askan bi mhm. certainement jot nga ko suivre yi gis nga kàddu yi nga xamante ni ñoom Birame Souleye Diop et yëkkati nañ ko donc Birame Souleye nag li mu wax ñëwaat na ci li nga xamante ni moo leen gën a métti muy que depuis lors dañuy bëgg tenir seen ay conférence de presse seen ay siège wala siège yu PRP et autres mais dañ leen koy tere parce que dañ koy barricadé finalement mujj nañu euh, janok euh, taskatu xabaar yi waxante ak askan bi ñëw na aussi ci présidentielle du 2024 xamle nañ ñu bëgg ñu mi la ministre de Antoine Félix Diome ki nga xamante moom moo koy organisé mm-hmm. ñëwaat na tamit ci seen candidat ñoom Pastef resté ci seen position ne Ousmane Sonko ba tey moom mooy seen candidat mm-hmm. waaw euh, lenn moom d'accord naa ko ak ñoom euh, mooy euh, effectivement je trouve pas normal ñu leen di interdire euh, ñuy euh, def ay conférence de presse hmm. daje loolu euh, peut-être ci ay jamono c'était compréhensible mais fi mu ne nii defe naa ne dëkk bi tàkkul dara xewul kon war nañ leen mën a bàyyi ñuy dajale ñuy ñuy ñuy waxtaan ak àddina bi tamit ak askan wi loolu moom je pense que nekkul lu dul euh, loo xam ne mooy jaadu. par contre nag man euh, yeewu askan bi ci boppam euh, damaa jàpp ne wax dëgg fa yàlla ba mu faatoo du tey faatu na bu yàgg. seen nga jàpp loolu. waaw parce que xam nga yeewu askan bi moom ñoom bu ñu tënkoo rek ci seen charte yi loolu ñu ngi koy wax tout le temps bien que ñoom ñu ngi wax le contraire bu ñu tënkoo boo tënkoo seen charte yi jeex na depuis législative yi. actuellement euh, ñoom ñëpp ay candidaa la ñu gis nga ña nga ñoom ña ngay tasaaroo boo seetloo ña fa nekkoon candidat yëpp tey bu ñu bu dajaloo dee am ñoom ñoo ay député yi ngay gis ñuy wax mais euh, tête de gondole leader yi quoi nekkatuñu fa euh, beneen tamit yeewu askan wi xëy dañ ci dellusiwaat ci biir émission bi yeewu boo xam ne nii taxawu Sénégal génn na fa pur moo fa des ak parce que occasion la ñu duggaale ci bi bien que euh, Pastef analyse par rapport ak rupture bi am entre taxaw ak Pastef waaw man man euh, rupture boobu c'était euh, pour moi c'est c'est c'est dans le cours normal des choses parce que xam nga politique ku nekk sa intérêt ngay xool Pastef nag ñoom ñoo xamul politique waaye man yàgg naa wax ne yeewu askan wi ñoom mënuñoo bala ñoo am prétention yeewu askan wi nañ yeewu seen bopp ba pare ndax lu euh, ñu tënkee seen bopp moom ñoom ñoo fa àndoon ñëpp seen ànd ba dara sincère aussi ay circonstances moo leen dajale woon euh, ak ay ay ak ay intérêt ba intérêt yi convergent we ñoom ñoom ñu ànd ba mu divergent wi ku ne demal sa bopp donc euh, tey jii taxaw Sénégal Khalifa Sall nga xam ne c'est un vieux de la vieille xam politique yàgg ci politique xam ne bii enjeu yi di ñëw par rapport à lui sa situation personnelle bu toppee benn Sonko mi nga xam ne ki a encore d'autres présidentielles devant lui euh, te euh, mu xam tamit ne y a la politique mais y a aussi la réelle politique et que euh, tey c'est comme toutes les guerres se terminent autour d'une table Ukraine ak Russie ngi nii mm. dañuy xeexante ba sonn lee dañu pause jàllale seen lekk jàllale seen ay bagages yooyu waxuma laak nag fii kon le l'extrémisme le le le combat à tout prix mortal combat nangam nangam à un moment donné ben il faut bien que ça s'arrête donc xalifa Sall xam na ne bu toppee Sonko mi moom Sonko yemuñu ay intérêt bokkuñu euh, euh, euh, ay priorité bu ko toppee ci guddi gi c'est lui qui a qui va y laisser des plumes mais mu demal boppam sa loolu man man ça me choque pas parce que je trouve que c'est tout à fait normal et j'approuve aussi. oui mais ce que fi ñu toll nii guerre bi waroon na c'est-à-dire est-ce que est-ce que. est-ce que c'était pertinent quand même fi ñu toll nii ñoom ñuy am pëccëxoo seen biir bu ñu gisee ni ñu ngi dëgmal présidentielle yu 2024 Khalifa Sall fas yéene ci comme ni mu ko waxee naa bokk rek fexe na ba bokk dialogue bi mun naa ni ça lui utile mais bu ñu fàttalikoo li nga xamante ni bokkoon na ci la ñu nasoon moo di présidentielle su ku ci am sa candidat da ngay sa bopp mais bu ñu demee tey jii ba deuxième tour dañuy booloo ci ci kenn donc dans ce cas tey jii bu ko waaye yeewi génnee ci bileeb coalition bu demee tey jii ba présidentielle un soutien de taille Yewwi kan bi mm. donc est-ce que génn bi ñu ko génne nii ak guerre bi nga xamante ni moom moo ko waral entre Pastef ak Taxawu c'était le moment important mais mais mais xam nga euh, Penda xam nga en politique moom Euh, vraiment euh, xool ay moment opportun c'est c'est comme tirer euh, ou bien faire des plans sur la comète parce que tu vas voir euh, bu ñu demee présidentielle ñu àgg second tour tu vas foofu Euh, euh, waa Pastef waa waa waa taxaw Dakar waa taxaw Sénégal dañ déggoo par force lu politique la Pastef nag moom moo nekk di jàng nii ña nekk ci Pastef nga xam ne majeure partie bi waxuma nag eh, euh, kii waaw waxuma seen remandiment bu mujj bi nga xam ne récupéré nañu paawu gauche yi yëpp ci biir mais ñoom ñoo nekk actuellement di jàng Sénégal ak di jàng politique parce que politique nag Euh, c'est pas la Bible du ay affaire taarixa du ay la. est que jàng bi yéexul c'est-à-dire jàng bi bu fekkee dañuy jàng jàng bi la ñu xam nga xam nga jàng lu ñu waroon loolu yàgg naa ko wax. waaye man dama gëm tamit ne il n'est jamais trop tard pour apprendre et que yi ñu nekk di dund nii bu leen renforcer wul euh, dootu leen renforcer à jamais actuellement ils sont en train de vivre leur dernière chance cest à lii bu ñu ci yeewul xam d'abord seen bopp xam Sénégal xam Sénégalais yi. mais euh, tu vas voir parce que mooy njëkk mooy mooy gën a désagrégé wu actuellement nii euh, déjà euh, pend loo gis euh, waa Pastef fii kenn dong laa gis muy muy muy xataraayu di di di góor góorgóorlu sax di wax muy muy kii El Malick Ndiaye te ma ngay la may wax yëpp nag ma ngay góorgóorlu ba du wax loo xam ne nii parce que mi ngi takk mi ngi takk lam hmm. bëgg demoo ñaari jagat jagatawaat yi ko dugal ko fi euh, euh, ñu sauvé ko de justesse mais Birame Souleye mii gisoo ko dootu jël mukk risque de wax keroog ba ma gisee muy def genre moo deful effet sax fooy la jël bind di liir euh, bu làqatuwul ci affaire député yooyu mm-hmm. gis nga ko tey jii ba muy wax sax boo ko xoolee ni muy xiin xiin la nga xam ne ci dafa tiit mi nga rek fi traumatisme lañu am donc gëree bi ñu doon jaay xam ay bande micro lañu gëree ñu doon jaay yooyu yëpp fi mais dix mois benn Belgique kan nga daan waa Pastef yu yu réyoon làmmiñ yeeg amoon fit te média yi nga xam ne ak nu ñu arrogant woon yow yow mii boo leen daan jéem a woo sax waxuma lak man man ndax man mosuma sa jéema a woo kenn waaye waa Pastef seen ay journaliste la ñuy waxal ak seen ay xarit dégg nga euh, aju ca kaw foogoon nañ dèjà ñoom dugg nañu pale fuuy arrogant bew dégg waaye léegi ni ñoom ñëpp daw làqatu Sonko rek nekkul prison de ñoom ñëpp laa la ña nga prise yi nga xaru làqatu bu ñuy wax fi ñu doon dañuy fexe ba ba am benn couverture de euh, immunité de parlementaire xam nga hmm. ñoo toog wax donc ils sont en train d'apprendre et ça ils ont dû le faire depuis longtemps mais là ñu ngi si dernier virage lañu nekk mais li nga wax sànq ni bu ñu demoon tey ji ba deuxième tour Pastef ak taxaw mun nañu retrouver wu ndax mënati na nekk bu ñu gisee tout récemment la ñuy yàkkante El Mali bi nga wax bi ma ko seetaanee barki dem sorti bu mu defak ak ay na mu ngi xaw a sax euh, kaañ ki nga xamante ni moom moo di xalifa di ko rappelé que ni ko dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay cest dafa am ay amende yu nga xamante ni war na ko fay te ñoom seen leader warul am amul benn benn juy bu nga xamante ni war na ko fay fisc mm-hmm. ak yu mel donc gis nañ tamit Aba Mbaye révélation yi mu def ci Ngouda Mboup ak yu ni mel révélation yi ma ngay gën di wulee ñaay gis nga Barthélémy Dias sorti bu mu ci def ak yu ni mel nga mm. xam bëri na comme pour dire que ni bu ngeen dakkalul li ngeen nekkee dinaa ñëw te bu may ñëwaatee du neex oui mm. est-ce que est-ce que loolee yëpp nii am tey jii bu ñu bëggee retrouver ëllëg dina nekk lu yomb mais euh, benn la boobu loolu moom ci seen retrouvailles yi ak li ma la wax ne la te dee dee yàlla ñu fi dégg bàyyi yaa ngi fi maa ngi fi mais loolu xam nga loolu la koy firndeel euh,